ah dafay am benn discours boo xam ne da koy tenir discours boo xam ni prometteur vraiment boo xam ni dafay charmer ñu bari mais sénégalais yi nag fi ñu toll nii euh, dafa am loo xam ne daf leen a daloon dalati leen ba dañuy egg ci naan le pouvoir rend fou entre li nga xam ne moom moo di. Euh, euh, def euh, pro promesse yi ak li nga xam ne moom moo di élaborer li ngay élaborer ak ni nga koy defee ba nga xam ne matal nañ ko bu ñu faloo dafa am un fossé bu ñuy faral di seetlu ba tax na sénégalais bu nekk rek bu dul ñëpp it am nañu am tuuti xaw am dédain ci homme politique yi ma bëggoon nag nga wax ñu yow lan mooy def la différence ba nga mën a traduire li nga xam ne moom moo di seen discours en acte yoo xam ne yu concret lay doon bien que le pouvoir rend fou laajte am na itam ñu bëri ñu koy laajte xam nga ñun moom euh, ñooy Sénégal euh, donc képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci ci ci ci ci luy doxal Sénégal rek il faut nga ñëw bokk ci plateau bi faruñoo gouvernement faruñoo opposition waaw faruñ ñu ak kenn waaye moom Garmeek may laaj léegi naan ma moom ban parti la bokk. voilà donc dina doon présentation pour presque plein de Sénégalais donte ah plein de Sénégalais xam nañu mooy. kan maa ngi ñoom nag yëgoowul ci bi waaw. Baye Cheikh waaw. maag internet yi. waaw yëgoowul. voilà ni ma toogee di ko demandé ñoo tam noonu la ko demandé. voilà noonu la ko ñëpp xamee. parce que am na itam ñu bëri ñoo. xam ne ñu faram fàcce ku bëggul réew mi doo ko doo ko faram fàcce. voilà donc tontu garmi mi tontu ah. keps. <laughs> professeur. Ah. FDS. <laughs> FDS les Guelwaar. les <laughs> parti bu bees la. ñu taxawal ko tabax ko ci xalaat yu bees. tabax ko aussi ak ay nit ñu bees muy parti boo xamante ni kàddu la waaye kàddu ñu néew doole kàddu ñu nekk ci suuf te bu ñu waxee duñu leen dégg mu war a nekk seen kàddu FDS gelawaar yoon la yoon woo xamante ni day wut senegal bu bees bu ñu tabax ci njub ci maandute ci Sénégal bi nga xam ñi ëpp ci réew mi jàpp ni ñoom bokkuñu ci réew mi muy baykat muy les pauvres muy ñi nekk ci àll bi muy ñi nekk ci banlieue yi ñu tabax Sénégal boo xamante ni ñoom dinañ ci gis seen bopp FDS Guelwaar yéene la SDS Guelwaar projet la waaye FDS ndono la ndax ndono Mamadou Dia ndono jàmbaar yu mel ni Abdoulaye Ly ndono jàmbaar yu mel ni Maam Léopold sengoor ndono lu ñuy wax idée de gauche ndono loolu la FDS gelawaar ci boppam daal di gàddu ñi ma ko àndal ma am yéene tabax le premier parti du Sénégal langue parti bi gën a yaatu ci Sénégal a tous les points de vie waaye la ñu war a am base sociale xam nga tax base sociale am ñi ànd ak FDS les gelawaar dañu war a xam lu tax ñu ànd ak FDS Guelwaar dañu war a xam lan mooy projet FDS Guelwaar dañu war a xam lan mooy contrat bi ndax bu ëllëgee bu nu jotee ci réew mi ñu góor góorgóorlu ba bañ a trahir contrat boobu moo tax dañu war a am base sociale suñu base sociale boobu ñu jàpp ci deux groupes mooy les jeunes les jeunes et les jeunes encore muy élève nga muy étudiant nga muy baykat nga nga nekk xale gisoo sa bopp ci réew mi ngalawaay bul def Barça wala Barsaq ngalawaay bul dee ci réew mi na nga xam ne FDS Gelawaar mooy sa parti waaye jigéen ñi nga xam dañu sonn nekk ci àll bi nekk ci naaj bi nekk ci tool yi nekk ci rizières yi ci Casamance jigéen ñooñu nañu xam ne FDS Gelawaar projet mooy teral jigéen mooy dooleel jigéen yokk dara ji jigéen ba jigéen ñi nekk ci pénc mi bokk ci góor ñi di décider soxna ceeb dinaa répondre sa question am ci plaisir xam nga lu tax man dama yàpp ni dama bokk bokkul parcours ak ñi ci des man tàmbaliwuma politique tey lycée El Hadji Malick si ñu ma bokkal génération ñu ngi may dégg dama am chance nekk le président du foyer El Hadji Malick Sy de Thiès en 2000 la première proposition de bourse étrangère que j'ai eue je l'ai au lycée El Hadji Malick Sy kon su ma neexoon du ñëw université damay jël avion joge Thiès dem jàngi bitim réew ma man koo muñ ñëw université jàng si ñëw université Cheikh Anta Diop am ay proposition bourse étrangère ma muñ ko suur ko continuer di ko xeex génération boobu xam ni musuma leen a trahir depuis Thiès musuma leen a trahir université Cheikh Anta Diop génération boobu di samay étudiant may leen di jàngal bis bu nekk ñuy xëy di ma gis suba ma am cours ak ñoom war a jàkkaarloog ñoom les yeux dans les yeux jàpp naa ni su ma waxee dinañ ma gëm ndax xam nañ ni ci boppam réew mi rek moo ñu ñor ndax dañoo def choix mënoon na rester dans les amphis am payoor bu baax dugg am sa kër gu baax tabax say kër def ay voyage d'études voyage nga mën a muñ loolu yëpp dugg ci langue gi ndax Sénégal moo ñu ko jaral wii xalaat yi dafa war a rafet je suis d'accord xam-xam bi dafa war a rafet mais dogu bi pastef bi ak détermination bi ak crédibilité bi jàpp naa ni soo jëlee FDS les Guelwaar wala nga xam ñi nekk ci FDS les Guelwaar wala nga xam projet bi xam ñi ko ŋànk soxna ceeb Thiébs xam ni suñu génération bu ñu waxee ak ñoom dinañ ñu déglu dinañ ñu déggal ndax xam nañ ni ci boppam dara wundu ko lu dul changer askan wi indi fi ay coppati yoo xamante li nga xamante ne moo doon rêve maam président Mamadou Dia dinañ ko mën a mottali mhm. bis bi ma jëkkee rencontré président Mamadou Dia ma ñëw dakaar nekk étudiant ma dégg ñu ni les mémoires du militant du tiers monde nouvelle édi non Afrique le prix de la liberté dafa génn ma jot sama bourse ma dem jënd livre bi quatre-vingts bi nekk ville ñëw fanaane liir livre bi ma xëy ñi ni ma dégg ñi ni góor gi de zone bee la dëkk ma dem zone be laajte bañ ni ma kër gee la président ma Mamadou Dia dëkk ma nekk étudiant ma ñëw fëgg secrétaire bi génn ni ma ndax da am rendez-vous ak góor gi ma ne ko déedéet man de simple étudiant la bëggoon mu dédicacel ma sama livre mu yéeg ci kaw wax ak góor gi góor gi ni ko naa yéeg si bi ma ñëwee dafa kontaan ndax li ko jaaxaloon ab étudiant bu nekk université di dogg ñu université noonu la mën a def gëstu ba li ma xamoon ci jaax liiroon ko ci ay livre am loolu impressionné woon ko jour boobu mu defal ma dédicace boo xam ne livre bi maa ngi moom ba léegi moom ci boppam mu dédicacel ma daal di may ñaanal bi ma demee bay jóg di dem mu woowaat ma ma ñëw góor gi summi mbaxanaam dindi kaala gi ni ma jëlal sa loxo yi nga teg ko ci sama lo sama sama sama sama bopp bi nga ñaanal ma mm-hmm. ma ne ko góor gi nan laa jële sama loxo yi ma teg ko ci sa ci sa bopp di la ñaanal mu ma ndax yéen xale yi yéenay sama yaakaar jiw wi ma doon ji ci yéen la yéen a war a jebbi yéen a war a màgg yéen yéenay ëllëgu Sénégal ndono loolu la ñu yor ndono loolu ku ko yor war nga góor la ba aar ko ba yiir ko ba li nga xamante ni ñi doon xeex indépendance depuis ñoom Lat Joor Seydi Hadji Omar mi nga xamante ne wax nga ko maam Cheikh Ahmadou Bamba Seydi Hadji Malick Sy maamu Laay ñeneen nag ñeneen ak ñeneen Léopold Senghor ñoom président Mamadou Dia ba loolu ñu mën a continuer xeex boobu Sénégal gën a moom boppam waaye Sénégal gën a naat xale yi gën a gis seen bopp ci réew mi waaye réew mi gën a gis seen bopp ci réew mi ba benn xale du jëleetu gaalu looco di dee ci géej gi semaine bii rek bërki démb rek 172 xale di doomu réew mi dee nañu ci géej gi loolu échec gënu koo rëy toroxtaange gënu koo rëy ci les gouvernants africain foofu rek la échec mën a yem kon war nañoo xeex ba xale yi des ci réew mi ca loolu xeex ba xale yi des ci réew mi mooy fexe ñi def ay politique yoo xamante ni xale yi dinañ ci gis seen bopp gis nga bi nga xamante ni mbëkk mi am na xale yu bëri dee ci am na benn semaine boo xamante ni Amadou Mbaye gar am na ci semaine boo xamante ni quatre cent cinquante xale di doomu réew mi dee ci mais xale yooyu doomu réew mi la xale yooyu waa réew mi la xale yooyu seen i mag ak seen i rakk seen i ci réew mi man bi loolu amee damaa dem ba Ndar géej quartier bu ñuy wax pikin quartier boobu boo fa duggee kër goo laal dëj la mais kenn dëju leen kenn jooyalu leen ah, kenn jarax kenn ah, kenn jaxalu leen hmm. ay ay rappeur ay ah, artistes yu mel ni Dip ñoo ci wax moo tax je rends hommage à Dip moom moo wax na ci wax yu am solo yoo xam ne ku doon politique war nga ciy déglu donc loo xamante ni nappkat gëj na gis jën professeur bu sàccul ñaanul mar na xiif na mhm. diplôme ak journal yam kayit la mhm. fay ndox ak courant ba tey dañuy të suñu quotidien moo gën a tiis tës suñu kër day taa ndox lu ñu miin la mhm. professeur euh, question bi moom il faut mu ñëw ndaxte sànq yaa ngi doon wax sa jaar-jaar diggante Thiès ak ba université Cheikh Anta Diop université Cheikh Anta Diop foo miin Euh, ndaxte bokk nga ci.